laqil lisaani waxlulan minhu lum xad wacalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana al xikam faliyah bil mustafa xayra shiyam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yokk siyaar waa daara xikmatul yawmi xaaju benn ñaar ñett ñeent juróom ak bépp banqaas bu ci aju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 tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li tàmbali woon muy alhimma al aliya muy yitte ju kawe te euh, ñu waxoon ne euh, Sëriñ Tuubaa mi ngi taxawal yoonu murid nag ci yitte ju kawe muy fekk li ñëpp bëgg yow nga bëgg lu ko ëpp ndax yàlla ay mayam ak i xéewalam yemut fenn moo tax Sëriñ Tuubaa moom bi gisee ne tamit al iradatul amma dafa am wala iradatul xaasa moom masta jaar ci moom moom dafa moom moom dafa dafa daldi jubale rek al iradatul xaasa muy e, murit goo xam ne nii gu beru la muy bëgg lu ëpp li bindeef yi bëgg ci yàlla te loolu lu mën a nekk la moo tax Cheikh Mamadou Fadal dafa daan wax ne koo seen muy dox rek ab murit la xanaa kay lam muritu jëm loola moo mat a laaj lam bëgg jëm te loolu alxuraan moo ko wax minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul axira moo tax Sëriñ tubaa wax nañ ne Cheikh Saxdu Abi radiyallahu anhu mas naa gis ci guddi suñu borom tabaaraka wa taala wan ko eh, doomu aadama yi ñu xaaj leen ñaari xaaj laaj benn xaaj bi ñoo ñan ñu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ni ñoom àdduna rek moo leen jiiteel mu laaj beneen xaaj bi ñu ne ko ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom àllaaxira rek leen yitteel muy àjjana texe ëllëg mu gis kuy xuus jaar ci seen diggante di waaxuy wéy mu ne waa kee moom lu mu bëgg kee moom mooy kan ñu ne ko kee mooy xaadimu rasul mu ne moom lu bëgg ñu ne moom de li li ñaari kuréel yi bëgg yépp li mu bëgg ko ëpp mu ne moom lu mu bëgg ñu ne ko maqaamal ubudiyya la bëgg doon muy maqaamul ubudiya nag mooy maqaama moo xam ne nii al ubudiyatu dañoo wax ne mbindeef lu mu gën a jege yàlla rek di gën di doon ab jaamam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo gën kawe ñëpp bu diggi mi rañaan yi sax suñu borom tabaraka wa taala ab jaam la ko fa tuddee subhaanallahi si asra bi abdihi layla la al masjid min al masjid al haram moo tax gaa yi yàlla yi bëgguñu doon ci yàlla lu dul nekk as njaamam loolu mooy maqaamam mi gën a kawe Cheikh Abdul Wahab Ash-Shahrani dafa gént bis wala boog muy janeer cër yi gaa yi yàlla yi am dem ba nar a xeeb ab cëram am lu ñëw deey ko ne ko yow Abdul Wahab bu la yàlla ubbiloon kiiraay nga gis àtte yépp lu ne fa muy jógee ak fa mu jëm te nangu loolu la sag njaam du la jariñ dara ci la jóge moom it di ñaan suñu borom defal ko maqaamal ubudiyya léegi nag gént ko bi ko seex Saxta ab yi géntee ñu ne ko waaye nag maqaama mu doon wut am na ko bis ni ki tey mu daldi xëy bind leetar yónnee ko doomam ju ñuy wax Cheikh sëriñ tubaa itam bind leetar yónnee ko Cheikh Saxdu Abi ñaari leetar yi juyaloo sëriñ tubaa bi mu ubbee leetar bi Cheikh Saxdu Abi bind te yónnee ko doomam mu gis Cheikh Cheikh Saxdu Abi bind ca gannaaw bu ko siyaaree ndokkeel ko ne ko dañ maa wan bii kat sa maqaam moo doon wut ñu ne ma am nga ko maa la ci ndokkeel leetar bi se bi sëriñ bi bind Cheikh Saxdu Abi ko ubbee fekk sëriñ bind ci ne ko yow Cheikh Saxdu Abi ndokkeel ko siyaaree ko ci li mu doon sëtu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag la ma doon am maqaam mu ma doon am mu ma doon wurkat ñu xamal ma biig ne ma am naa ko ma la ko yëgal loolu mooy maqaamal ubudiya kon sëñ Tuubaa lim bëgg ak li mbindeef yi bëgg bokkul naka jekk loolu nag la muy tekk rek mooy alhimma al aaliya te mooy yitte kawe kon képp koo xam ne ni sëriñ Tuubaa mooy sa royukaay war nga koo roy ca loola muy bëgg lu rëy ci yàlla buñ gisee sëriñ Tuubaa tamit jomam ak eh, ngorom ak yiteem ak pasteefam pasteefam ak yiteem ju kawe tax na ñi ko fi jiitu ni mu baree ci saahir ak ni mu yàgg yàggadee ci jamono ci saahir mu farlu am yitte ju kawe ba kenn jiituwu ko ci boromam loolu yitte ju kawe moo ko ko may dégg ma yonent bi sallallahu alayhi wa ni mu soree ci saahir te bu mu ñëwee dafa wax ne bu fi fekkutoon benn jeexiite yonent bi mu leer ko ne ko ci suuf si la daan dox asamaan si moo ko daan tiim li muy wut ci yonent bi yitteem ju kawe dana ko ko may loolu mooy al imma al aliya yi tuju kawe diggam ak saxaaba yi ni mu soree waaye joomam tax mu nawloo leen dem ba bokk ci ñoom dem ba kenn jiituwu ko ci yonante bi sallallahu alayhi mu waxal ko boppam it shahida lillah bi anni waahidu min ahli badrin maa nahaa ni jaahidu loola yitte ju kawe moo ko may mu bokk ci ahlu badar alquran ba mu wàccee ba tey ba ni sëriñ bi ñëw ci saaxir ni mu soree ak li ci jullit ñi daj mu ñëw yitteem ju kawe tax mu liggéeyal ci boromam lu tax boromam may ko ko far loola yitteem ju kawe la tem bind ko man la kañil quraan tam lii kan yadu loola yitte ju kawe moo ko may ah ñi doon tagg yonante bi sallallahu alayhi muy Kaab ak Hassan ibnu Saabit ak taggkat yëpp mu ñëw te Sëñ Tuubaa li muy def bu ñëwee dalay roy def la bu ndawale ba mu yàgg mu romb la noonu lay def ci ay taggiin moo tax ba mu ñëwee la xam ne ah képp koo xam ne ak mbaax a ngi ci yow kat na nga xam ne tagg yonante bi sallallahu alayhi mooy tono gi ëpp baana li kulli man lahu salaahu annam tidaaxal muntaxaa falaahu daal di sóobu nag ba àgg ci foo xam ne nii la ca ñooña amoon am na ko ca ba weesu leen ba bindal ko boppam lu ci nekk mu bind ko daal di wax suñu borom kat ñoddil nga ma lu ma dindil bépp tër waaye mujj naa nag liggéeyal gi ma liggéey yonante bi sallallahu ma mel ci ni Anas waxaat ne suñu borom tabaaraka wa taala yaa ma may ay xéewal ba doon na loo ma Hassan ibnu Saabit ci tagg yonante bi sallallahu alayhi wa sallam am fu mu waxee sax ne jéggi naa leen faf dem naa ba nekk ci seen kanam nekkatuñ ci sama kanawaay ci sama gannaaw lañu nekk lii xuttama sax sa an yed danas surtout xadimal Mustafa misla anas malagtani wa xuttali ihsaana wa ristu fi madihi nabi hassana wax na am am na fu mu wax sax wa fi madihi jaawastu kahban wa hassana